Euh, di kontaan lool ci liggéey bi nga xam ni ñoom ñoo ko tàmbali depuis ñun ba ñuy doon ay tuut tànk euh, ba taxawal fi daayra tuddee ko Kanzul Muxtadin muy trésor diinal islam ak waa nuuru daare ni bu Touba mu xeex suñ Cheikh Mbacke mi di jëwriñ ji ñu àndandook ñoom liggéey bi ñun ñëpp ak euh, waa ñoom sëñ Birane sëñ Abdoulahat ñu leen di ziar bu baax di xam ni nag ñun ay ndaw lañ yoo xamante ni si liggéeyal Sëñ Tuubaa rek moo ñu tax a jóg moo tax ñu taxawal daayira bi boole kook lëkkaloo kook daayira bu Touba Fall mu xeex ak euh, saxaadatu daare ni bu université bi ne euh, Dakar université Cheikh Anta Diop ñuy bokk ci liggéey bi euh, daayira bi nag suñu suñu suñu suñu suñu liggéey leen dong la maanaam njàngum xam-xam ak jàng xasida Sëñ Tuubaa yi ak Euh, di di di fexe ñun ndaw ñun ñëpp ñuy bokk benn bëgg-bëgg comme ni ko Sëñ Tuubaa comme ni ko Sëñ Tuubaa waxee ci euh, tazawudu sixaar euh, nga xam ni ci ci xam-xam la ñuy dox ak jàng xasida ak di wax lu baax ak di def lu baax góor ak jigéen nag waaw ki yor njàngum xam-xam mi di sëñ Xaadim Mbàkke mu sëñ Cerno Doj ak sëñ Abdoulaat mu Pape Cheikh moom ci kër gi la bokk ñun ñëpp ñu koy àndandoo di ko di ko defandoo noonu léegi waa Nuuru Daareeni sëñ Cheikh mi di seen jawrin ñoom it ñu àndoon ñun ñëpp tamit ci liggéey bi wax dëgg yàlla bàyyiwuñu si benn yoon ba Dakar ñenn ñaa ngi tubaafal Fall ñenn ñi euh, ñoo ngi dakaar waaye heure bu daayira amee dañuy ñëw teew waaw wane si passé mat sëkk àndoon ñun liggéey bi ñu ñu ñu ñu bokkandoo ñun liggéey bi rafetlu ko lool euh, Alaaji Ndaama Fall mi nga xamante ni si nag daanaka moo waral lii lépp euh, ñoo ngi koy ñaanal bu baax moom it biñ ko waxee daayira bi mu rafetlu ko lool wax dëgg yàlla kontaan si lool euh, Pape Cheikh Fall mi nga xam mooy jëwriñ ci ci famille bi moom it mu rafetlu ko lool kontaan si lool. mën naa ni ñoom ñoo ñu dooleel gannaaw loolu nag sëñ Dan Fall ak euh, sëñ Modou Fall ñoom it euh, ñoo ñu jàppale ñu si bu baax wax dëgg yàlla seetaan nañu benn yoon waaw ñoom ñëpp seetaan nañu benn yoon ñuy àndandoo ñun ci liggéey bi te dañuy ñaan yàlla ba ni ñu ko bëggee rek. seytaane bañ ci dugg dara bañ koo yàq ñu continuer ko nii ba faw ba faw faw incha allahu rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen ziar te di leen ndokkeel ci guddi gu sell gi di santaat sunu borom bi mu defalee ñu fekke ko yal nañ ko teewaat naga ni déwén eh, ñoo ngi sant nag bu baax ah, di jiitu ci sant bi sunu jëwriñ sëñ Basiru Mbàkke ci liggéey bu rafet bi nga xam si nii amal na ko muy Kanzul Muhtadin ak Sahdu Daarin ak Nuuru Daarini mu boole seen i doole ñu doon benn ngir gën a mën a liggéeyal Cheikhul Khadim loolu nag dañ ko commencé woon ci màggal gi ba jànnatu fa lañ ko njëkk defee ah, wax dëgg yàlla euh, màggal nañ fa guddi màggal gi wàcce nañ fa kaamil waxtaan nañ fa jàng nañ fa xasida loolu nag liggéey bi ñu bëgg ñu bëgg koo confirmer fii ci màggal ci gàmm gi incha allahu rabbi fii ci Touba ba tax na ñëpp rek ñu boole suñu doole jàpp ci guddi gi lépp luy organisation ñu dugal ci suñu loxo ba nga xam si ni guddi gi dina dina jag loolu daal mooy suñu yéene tey lii dañoo bëgg mu continuer ñu ci woo ñëpp rek ñu jàppale na ci ndax bëgguñu lenn rek liñ bëgg rek mooy mu jëm ci kanam liggéeyal Cheikhul Khadim mi nga xam si ni lépp loo xam si ni am na ko kii nga xam si ni moom la ni màggal bi si jëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci la ko amee kon boog bisam bi bu dikkee war nañ cee mën a taxaw lépp loo xam si mën nañ ko cee jàpp ah, defal ko Cheikhul Khadim ah, sigileeku ko ndigal sigileeku ko sang bi tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu rek moo ci yéene kon ñoo ngi leen di jaar yéen ñëpp rek di leen ndokkeel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم القادر للأمان ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziar di jiital nuyu bi sunu kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ak sunu jëriñ bi nga xam ne moom lañ bokkal liggéeyal bi muy Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Sëñ Ahmadou Makhtar Mbacke li nga xam ne nag moo ñu yëkkati muy liggéeyal Serigne Touba ndax ci kaw suuf gi ñu nekk amul lenn lu fi gën a tedd lu liggéeyal Serigne Touba li waraloon nag. mooy guddi gii ñu bëgg koo dundal mu nekk guddi goo xam ni sëñ bi da koo fonkoon lool ba bañ na ko sax guddi gi moo ko daan taxawal boppam ndax fonk gi ko fonk ndax lépp lu mu am ci kaw suuf rek ginnaaw sunu borom jëmm ju tedd ji moo ko may ndax àggoon na fenn fi ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënal ko léppam boo xoolee ci xasida gi mu tuddee laa ilaha illallah da dégg mu naan dammi wa ahli wa awlaadi lfidaau lahu abdan xadiman lahu muskaani li sanada sama deret sama njon samay alal sama lépp jëndee naa ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñi nga xam nag ñi nga xam ni ñoo nekk taalibe Serigne Touba kon war nañu ko fonkale bisam bi ndax nit ku ne amul dudul bisam buñ ci xeeb dara ndax sëñ bi fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharrafi maalan bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami donte ab dërëm la sax baax na lam ci teg fa man yuazim mawlida nabiyina baabil huda fala yuxaasabu gada faxtariman wa azimi képp koo xam ne màggal nga guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy buntu njub yëpp bu ëllëgee kenn du la xisaab kon nañ warmal bis bi te màggal ko ndax amuñu lu gën a màgg bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ni li ñu sëmb du ay caaxaan nañ am ci gëm-gëm am pas-pas xam li nga xam ne mooñu ñu yitteel ak li nga xam ne moom moom la bëgg ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ndax bërigo ci mbartal la buux mu dem buuxul mu dem waaye nag ñi ciy sàkku kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ñi nga xam ne ñooy sunu waajur te jiituñ sunu àdduna gën ñoo xam lépp ñoom tamit soxla nañ leen ci ndax ay ndaw bu ñu nekk ci dara mag nekk seen kanam da ciy baax lool mooy tax fi ñuy teg seen tànk ñu xam ko mooy tax yenn njumte yi duñ ci dugg loolu daal lañ amoon ci lu ñuy wax ndax boo xoolee ci màggal gi lañ ko tàmmale ñu gis ci tawféex bi lool ginnaaw bi nag ñu ngi nag bu gàmm gi ñëwee moom faaw dañ koy dundal ndax suñu yaakaar tey ëllëg bis bi da ko fonkoon lool bañ na ko sax moom moo ko daan dundal boppam lii day jël naa ci kàddu bi ci turu euh, samay wëllëre ñuy njabootu Alaaji Ndaama Fall jiital ci Mouhamadan Fall teg ci Modou Fall teg ci xale yi njaboot gi yëpp euh, di wane ni lii ngeen def euh, seen maam bëgg na ci ndax muy li nga xam ni muy li mu indi fii Touba Fall mu xeer dëkk yu bari bëgg nañ ko ndax bu dee gàmm màggal juddu nabi sallallahu bu ñuy def ci Sénégal xam naa ne buñ ci tegee bu Touba ci kanam lay nekk ndaxte lii ngeen def nii da ngeen ko donn guddi gi mësuñu ci def dara lu dul ni ko sang bi bëgg woon te Cheikh Khadim teg ñu ci yoon wi ñu jaar ci yoon wi ni nga ko waxee sàng euh, bërigo bu tegum ci bartal boo ko téyee mu dem boo ko poussé mu dem yéen nag yàlla leen dimbali ngeen pousse ko ànd moom macha allah kon nag euh, séntu naa ci rafet naa ci njorti te alaaji ndaama lu mu bëggoon rek lépp dajale ngeen ko ci seen xol gis ko da ngeen ko gis nag parce que bu ngeen ko gisul woon mun naam ngeen def mu des waaye lii ngeen jë nii bu neexee yàlla incha allah rabbi kanam la jëm te lu ngeen ci def rek neen ko xeeb lu ngeen ci def neen ko xeeb moom dafa summeekoon ba yére yi muy sol da ko doon joxe sax ci guddi gi ku ñëw mu jël dàll ni la xoolal bu lu neex kooku bëggul woon denc dara ndax guddi gi jël leen tànk yooyu nag bu leen am dara lu ngeen di jaaxle incha allah rabbi waaw te dinañ ko waxaat incha allah te li mu bëggoon it pour man sommet bi des na waaye yéen a ngi ci yoon wi te di ngeen egg bu neex yàlla incha allah rabbi lu ñu man mooy ñaanal leen dinañ leen ñaanal euh, waxtaan bi gàtt na mais am na solo te bu ma demee ci Mouhamadou nag Modou dinaa ci wax ak moom loo xam ni daanaka mottali lii la parce que lépp wax nañ ko fii nii ngeen defee nii nag bu neex yàlla bu leen am dara lu ngeen jaaxle lépp lu ngeen soxla nag mu ngi seen seen mag waaw Mouhamadou boo ngeen gestoo rek gis ko daanaka lu ngeen soxla rek jaru ngeen ko koy wax. na ngeen wane seen bëgg-bëgg rek dina def bu neex yàlla waa parce que moom mit yoon bi rek la jaaroon kon nag yéen it macha allah rabbi man wóllëre njaboot gi laa di seen doomu baay ndaxte ñaar fukki at ak bari na bariwul waaye buñ sañoon lu ngeen def yéen sax bu ngeen gisul Modou gisul leen eh, Mouhamadan bu ngeen ma wooyee ma daw def ko incha allah rabbi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar e, di leen ndokkeel it ci bis bi lii man yàlla moo ma ci yemale waaye maa ngi ci biir nun e, ñëpp nu wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax li sëñ bi wax ni lii cosaan la fi man am naa ci lu ma xam ndax seen maam mooy baay alsaan ba muy jóge Gosaas di yóbbul sëñ Touba mat di ko yenu ba yàgg ñu am warax lu ci bari wax na ma ko xam naa ci xam-xam boo xay bii ni fii ci tund wii ku ma ko waxul xamoo ko wax naa man ba àgg celas maam borom Touba dénkan maam ma faal mbay te xamuñu ku ko yor loolu sori na xëju fi waaye li ma leen di wax daal ngeen dolli ko góor parce que dal lu baax yomb na waaye àggale ko jafe na te it mission bi moom ki ko yor tàmbali ko wàcc na muy alaaji ndaama mi koy doxal di ko doxal ba mu agsi fii tey yàlla mooy def lu ko soop téye na ko kon yéen bu ngeen taxawee pour di def lii man sama xel day dal dañu leen di ñaanal yàlla rek yàlla bu leen am benn pakk at mi ñu fi jëkk jëkk jëkkee woote fii di fi wàcc ab kaamil booba dëkk bi melul nii mu mel am na boroom benn xam-xam boo xay bii ni ma nga dëkk déggula ko euh, ndiireen su ma ko waxee ñi fi jige deeñ ko xam ñu di ko wax xooye jàllo daanaka salmaacita lañ koy wax keroog bi ñu wàcce noo sosuloo mu ni ma daawda ma ni ko ah mu ni ma lii ñuy tàmbali de di ko wax bu ci ngistal amee du dem fenn waaye bu fekkente ni yàlla rek a tax kanam lay jëm kon dañuy sant yàlla di sant yonent bi di julli ci Seydina Muhammad lépp loo xëy yàlla dogal na yëngu nañu ko fi yàlla na ko yàlla def yiw te yëkkati sunu mag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin of bu ca xeewal ci barke yonent bi sañ-sañ wax ko danga am dégg ko daal ngeen jàpp ko dégg ko bu ci tànn xet sa bopp parce que ngeen nekk bii parce que seen ko sàmm bu ngeen fotee boobu ak léegi li ñu mën cee dugg yéen ñëpp ngeen wax seen waaw te damay jàpp foofu ngeen bokk ci ñu yàggee suñu wax. waaw ndax sëñ bi suñu waa dafa sàmm suñu Moustapha te suñu xam. la amini wa amini ملكني الأمير والأمير كتاب باخ جاء الثامن بس سيدي بس سبحان الله يلا يلا سمع لي فلوس